asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 7 novembre 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey yëglekaay bi nga xam ne moo di sunu làmb la ñu koy doore kaay bi nag tey dafa xëy ñëw ci Modou mi nga xam ne day moom la ñu nommé meilleur bi nga xam ne ni day moo dàq bëre ci wàllum nit avec frappe waa ANPS def ko yëglekaay bi ñëwaat ci ñoom nee na ginnaaw Modou bi mu nekkee roi des arènes day jàkkaarloo ak VIP yi léegi nag li ko dese daal ci làmb ji fi mu nekk nii dafa mel ni nag digganteem ak ñi nga xam ne nii day ñooy xale yu ndaw yi ñoo des nag ngir mu war a nag jàkkaarloo ak ñoom yëglikaay bi di sunu lamb moo xëy tey ñëw wax na ko waaye loo xam ne tamit yëglikaay bi di sunu lamb tey ñëw na xëy dina ko xibaar mooy saison 2019 jàpp 2020 moom le premier journée bi daal yëglikaay bi ne na le 24 novembre bi nga xam ne nii day mën nañ ne promoteur bu mag a mag la muy Serigne Modou Niang moom nag bi di sunu lamb xëy tey na ko waaye moom sëñ Modou Niang nag yëglikaay bi ne na la muy ubbee mooy diggante ki nga xam ne nii day moom moo di BM ak Petit Baboy la la 24 novembre la ñu yëglikaay bi di sunu lamb xëy tey ñëw wax nu ko waaye jàppal ba tey le premier décembre tamit day ki nga xam ne nii mooy Fallou Ndiaye day ñëw ci diggante Mama Lamine ak Jokkel yëglikaay ba wax nañu ko le 8 décembre tamit boo bëggee dégg dëgg bise de mer numéro 2 ak Bill de Serre Gibson production moo fa jaar le 14 décembre Pape Ndoye ak ki nga xam ne moo di Jackson 2 kooku tamit Baba Diaw di Thiam production fay jaar le 15 décembre boo bëggee dégg dëgg ba tey Zal Bambey ak aada kooku idaali ñi ngi borom ñi ngi production mooy ñëw jàppal yëglikaay bi nee na tamit le 21 décembre ki nga xam ne moo di xeeru ngor numéro ak ki nga xam ne mooy booy yëmbal ñoom ñooy ñëw foofa tamit petit production moo fa jaar le 22 décembre ba tey 2019 jàppal jëy production mooy ñëw ci diggante Serigne Ndiaye numéro 2 bu Fass ak li mu dar bu Grand Yoff yëglikaay bi tamit ñëw na wax nu ko le 25 décembre 2019 ba tey Ousmane Ngom numéro 2 ak Ablaye Diop bu Yoff foofa nag ki nga xam ne nii de moo di Jax moom moo fa jaar moom mooy ñëw le 28 décembre 2019 Boy Balde ak góor gi si Dieng yëglikaay bi tamit nee na MC moo fa jaar di Bamba Faye le 29 décembre ki nga xam ne nii moo di Tafa Mbër ak Alioune Seye Junior foofu ka fa jaar mooy ki nga xam ne nii moom moo di Assane Ndiaye borom Bawol production le 12 janvier tamit jàppal yëglikaay bi ne deux siga ak ki nga xam ne ni moo di kaaw gourdin foofa tamit mbay yikini mooy ñëw caatu ñëwel fils de zallo loolu le 26 janvier boubacar ñang moo fa njar yëgle kaay bay wax ba tey le 23 février tamit boo bëggee dégg dëgg diggante jet li lay doon ak jam téeri waaye ba tey le 8 mars nag 2020 jàppal jam production mooy ñëw ak bébé saalum ak ki nga xam ne nii day moom moo di fara mu mel ni ki daal kon jàpp leen sunu lamb tey ñëw na ci dat yi nga xam ne nii day moo war a am ci làmb ji te ñu ubbi lii nga xam ne nii day moom moo di bal ba yëglikaay bi ñëw na ci ñii moom seeni mbir boo bëggee dëgg dëgg jàppal ah maanaam daal mooy waa école Grand Médine li leer ba leer daal seen bopp moom maintien nañu maanaam daal téye nañu seen bopp fa ñu nekkoon yëglikaay bi ne quatre victoire la ñu def trois défaites ak benn match nul yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne tamit dañuy dem ci record fekki ko fa mooy ki nga xam ne nii de moo di Mbaye Guèye premier tigre de Fass na tey wax mbay nag la mu xam ne daal nee na papa sow moom lay waxal nee na ko daal papa li leer ba leer na nga jël say responsabilité ci sa combat bii nga xam ne moom nga war a bëre ak loolu daal mooy waxi mbay Guèye leneen li ci des nag nee na moom Mbaye moom mbay Guèye daal li muy xam ne mooy Papa Sow moom kenn du ko dàq tey faas suba waxi noppi loolu waxi ki nga xam ne nii lay moom moo di Mbaye Guèye la waaye record itam daal ñëw na ci ñoo xam ne nii nag ginnaaw bi ñu gisee ay promoteur ñëw jàpp seen ay date ca sunu lamb fii ci record moom ñëw na xamal ñu ne am na ay promoteur yoo xam ne moom kenn gisul leen ak i date wala boog ca CNC ba muy ki nga xam ne nii lay mooy Pa Abdou Fall borom Pof production Pape Kelis Faye borom Leewtoo production ne nañ daal ñii moom absenté la ñu def maanaam gisee su leen fa nga xam ne nii day fa lañ doon joxe ay date wala boog ñu jàpp ay date ngir waajal saison ba date ya nag moom li leer ba kuy tëggati làmb booye woo xalaat fa nga xam ne nii mooy arène nationale bu dul foofa moom jàppal xanaa nga dem ca ya waaye le 31 décembre moom dañuy tëj li nga xam ne nii day moom moo di bi fa nga xam ne mooy Iba Mar Diop lamb dootu fa am wala boog dafa gaaw a amaat boog yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko leneen loo xam ne yëglikaay bi ni suñu làmb ñëw na wax nu ko mooy ki nga xam ne nii lay mooy forsa bu faas nee na moom law tax yëglikaay bi laaj lan moo tax ñu ragal ko wala boog dañ koo ragal sunu lamb xëy ñëw samp boobu laaj waaye keneen koo xam ne nii tamit day mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne moo di suñu lamb mooy pakala sunu suñu làmb na fi mu nekk nii day xale la delluwaat pakala daal dafa delluwaat di gune gu bees teq teq ndax nag li simple bi lay ñëw di ci commencé wane boppam fi mu nekk nii ci diggante ajuma ak dimanche mu am te ñaari final gagné benn perte benn yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko waaye leneen loo xam ne nii tamit dañ cay dem ba tey ci làmb simple jooju Leewtoo point net lañ ko jëlee mu mel ni yax yi jub yi kii nag ñëw na borom faata production daal bi mu ñëwee xam nga lu mu ëndee yëglikaay ba di Leewtoo point net nee na li leer ba leer le premier décembre boo bëggee dëgg dëgg yax yi jub yi kii ñetti millions la teg fa nga xam ne moo di sowal ñu ne ko déet waay yax ma ca yem leen le 22 décembre tamit damay dem fa nga xam ne nii moo di joof yor ak Fatou production tegaat fa yeneen ñetti millions ñu ne ko yax ya xanaa doy na mu ne du doy de ndax le 28 décembre li leer ba leer maa nga mbuur la ma fay teg mooy ñetti millions yax ya ba tey mooy wax kon daal mu mel ni li leer ba leer diggante fi nga xam ne moo di sowaal jaar joof yor wàcc si ba mbuur de Fatou production 9 millions la fa fas yéene tasaare ci biir mois de décembre bi yëg likaay bi Leewtoo point moo xëy ñëw di ñu leneen loo xam ne tamit ñu ngi ko fekk fa nga xam ne moo di record mu mel ni ki nag ki nga xam ne nii day moom moo di Khalifa Sow nekkoon fi di arbitre nekkoon fi nga xam ne mooy ci làmb ji yëglikaay bi di record mu ngi xamal ne nag moo a assuré nag lii nga xam ne mooy intérim ba ci place kii nga xam ne moo di Abdou Badji mu mel ni kii daal kon ni leer ba leer moom loolu moom la ñu record andi bu ñu demee nag ci li fa la xam ne nii mooy ca Lutte TV kañ fay fekk mooy Saloum saalum saalum Saloum nag mu nga xëy di wax wala boog la muy xam ne daal ñu ngi ci combat ak Balla Gaye numéro xam ne mu ngi ko fay wax moom Saloum Saloum waaye li leer ba leer moom te ñu war koo wax te war koo ñaan rek mooy gàmmu gi samedi ñaan yàlla dem si jàmm ñëw si jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ñu koy gàmmoo te itam lépp luñ ci ñaan na ko buur bi nangu tasaare ko ci àddina bi muy ay mucc ak ay xéewal ak ay yërmunde yu mata mata mat ndax yàlla moom jeexalut dara te moo ne ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen kon nanu ko ñaan te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 Amine Babacar ñu ñëw nag si journaux yi nga xam ne ñoom na wax tey si làmb ku si mel ni sunu làmb euh, record ak Leewtoo point net ñu commencé nag ak sunu làmb sunu làmb tey dafa xëy def benn jàngat di wax naan Modou Lo ginnaaw bu mu bëree ak ñi nga xam ne mooy euh, VIP yi léegi nag ne ñu xanaa léegi kon espoir yi noo ko ñoom noo ko dese. waaw loolu la journal bi xëy wax waa làmb danoonu la baaxoo comme yàlla def na. VIP yi mën nañ ne bëri na ak ñëpp bu dul bandum tafaatin yaakaar naa ñi ci des ñëpp bëri ak ñoom ba nekk tey roi des arènes ñu nominé waat ko pour ñaareelu yoon bi mu nekk meilleur lutteur ci wàllum làmb jànd ak kon tey defe naa foofu moom xay na dañ naan kat mën nañ ne xëy na bu ñu jeexal na fa mais nag bëri na lu mu fa def wala lu mu fa wane kon loolu yaakaar naa ne bu amee nag te làmb noonu lay baaxoo làmb dangay bëreek ñoo xam ne nii boo ñëwee say morom lañu après bëreeg say mag say rakk ñëw fekk la fi nga bëre ak ñoom kon actuellement ay rakkam ma ko dese ñuy xool nag bu duggee ci ay rakkam ndax ni mu lëmbee ci biir VIP ndax dina lëmbee foofu loolu dañu naan li ci kanam rawul ay bët. maag loolu am na solo suñu jógee nag si Modou Lo nañ dem nag si saison bi nee ñu nag saison lutte maanaam bëre dóor bi. seen premier combat le 24 novembre lay doon te sëñ Modou Niang moo koy def comme ni mu ko tàmbali tàmm na loolu yaakaar naa ne comme ni ñuy wax rek moom yàgg nañ ubbi làmb saison bu jot moom mooy jëkk a tëgg te boo xoolee des fois mu ëppale ay journée ba pare nag na tamit promoteur bi nga xam ne daal exemple wax mooy li muy def da koy def te du ci boole coow lu bëri du ci boole wax ju bëri te yaakaar naa ne tamit léegi nga xam ne yàgg na ci làmb sëñ Modou Niang ci làmb tey actuellement si promoteur yi kon c'est le yaa ngi dégg yaakaar naa moom Luc Nicolaï ak Pape Abdou Fall yaakaar naa tey ñooy doyen yu gars yi kon ñu koy ñaanal yàlla rek noonu muy ubbee yàlla na yàlla def ubbi bi muy ubbi yàlla na jig làmb ji ba saison ren bi dàq bi nga xam ne nii moom moo passé woon Amin Babacar suñu jógee ni des tamit ci promoteurs yi promoteurs yi nag ñoom il faut euh, fii ak le fii ak le 31 a wuti feneen stade foo xam ne fa lañ tëggee seen laam ndax stade bi nee koy tëj nee képp promoteur bu bëgg tëgg laam arène nationale daal ngay jëm ndax foofu foofu la ñu réservé pour làmb ji Babacar. Wolof waxi borom kër waaw la sant comme ministre bi nag moom moo yore sport réew mi ah ñu gis nag stade Iba Mar ñàkkul lu ñu fa war a def kon bu le 31 décembre daal bu ko tëjee ah wuti bi nag moom am na parce xanaa dañuy wax condition yi waaye am gi moom am na ndax am nañu arène nationale kon fa la ñuy xel di dem kon le 31 décembre daal à partir de boobu stade bi dañ koy tëj li ñuy wax foofu nag mooy que ni rek waxtaan na am rek ñoom entre ministre bi ak promoteur waa lamb yëpp parce ku ci ne rek ñi ko seq ñëpp ku ci jafe pour mën a amu ci moo xam ministre bi la moo xam ñeneen ñi la su ko defee ñu xool arène bi comme ni ci promoteurs yi faral di ñaxtu seeraay beeg yooyu ñu xool nu ñu ko amélioré boog niveau combat yi ñu xool ko sano combat bi nga tëgg xool nuñ koy amélioré pour que tey ki nga xam dafa tëgg yaawu jaal ak keneen wala mu tëgg beneen combat bu ndaw mu mën ko fa organiser te du xëy na du ko du ci am ay gaañu gaañu parce que tamit organiser ba pare yàlla. day xaw a doy waar nag sax Babacar suñ jógee nag suñu laam nañ dem si record record nag tey dafa dalal ki nga xam ne mooy Mbaye Guèye mais le premier tigre de Fass Mbaye daal nee na Papa Sow le cas Papa Sow daal moom la wax nee na Papa Sow jël ay responsabilités te nee nañu Fass Euh, Papa Sow kenn mënu ko dàq si si biir Fass Babacar. waaw Mbaye Guèye loolu la xëy wax Fass nañ jël seen ay responsabilité yaakaar naa yegg na ci ba si ba ci ne sax li leen lu leen dal bu ñu ko jiiñ kenn nañ ko jiiñ seen bopp. parce que ñoom la surtout mbër yi waaw loolu mu wax nag moom yaakaar naa mooy wax ji pour mën a ah, parce que lu am rek. Euh, waaw loo gis mu am rek am na lu ko lu ko waral li ñuy wax nag si écrit bu mu mën a doon moo xam Fass la wala comme ci mën a doon rek ñoom ñi ci écrit yi ñoom ñooy xool écrit mbir mi lan la war a def pour mën a pour écrit bi am ay résultat et tamit ñuy boole seen xol yi muy nekk benn loolu dafay baax moo xam écrit bi la moo xam liggéeyukaay bi la moo xam fu mu mën a doon parce ay xol bu ñu àndee rek pour man seen objectif yàgg mu yéex dinañ ko mës a atteindre mais bu fekkente ne nag ku ne da jàpp ne yow yaa war a def nangam wala man maa war a nekk mbër mi kenn nangam loolu du sotti dañu war di daje moo xam mbër yu mag yi ba ci yu ndaw yi di contact di mayante doole ku ne di am looy jëli sa morom di ko jox sa moroom pour que li mën a am muy résultat bu baax am écrit yépp nag lañ koy adressé leneen li si des mooy le cas de Papa Sow comme li mu mënee yaakaar naa ci phase bu ne mënee naa ne Mbaye Guèye mooy phase yaa ngi dégg xëy na nag tey bu fekkante ne dañu tëjal ay sart tamit mën nañ ne ñëpp nañ ko remplir yaa ngi dégg ku nekk aw ci yoon wi yaakaar naa nag dàq bi moom pour man amul njëriñ dàq bi pour man li ko gën mooy waxtaan mbay gi nag defe naa ne moo sañc écurie Fass te defe naa ne moom mooy Fass parce que moo nekk le premier tigre Fass ñu ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal bépp doomu aadama Amin Babacar suñu si toujours des si journal record bu record bu nag dafa xëy samp laaj ne euh, ginnaaw bu Abdou Badji euh, déposé démission am fee si table CNG ni nga am yaakaar ne xalifa saw dina ko wuuti comme ni ko Leewtoo point net euh, annoncé woon si semaine yi di génn. waaw loolu moom la ñu gis tey Leewtoo point net waxoon na ko fii ñu gisaat ko tey ci record alors nag li ñuy wax mooy kan rek Khalifa moom. nit la bi nga xam ne nii tey yaakaar naa fu ñu ko teg si làmb ne ko doxalal pour man war na ko mën a doxal ndax moo xam ci arbitrage ba ak yeneen yi ñu ko fa dénkoon yëpp yu ci ne rek def na ko kon Abdou Badji comme dafay démissionné bu ñu ko ko nangulee ba mu dem moom bu ñu indee itam xalifa defe naa day doon sotti ceeg def ci rek day yomb. maanaam day doxal. waaw yaakaar nañ ko de wax dëgg yàlla waaw yaakaar nañ ko ci xalifa trop. Babacar na suñ jógee record nañu dem si Leewtoo point net Leewtoo point net moom dafa génnee programme ki nga xam ne moo Yékini l'ancien roi des arènes bu dirigé institut Fata production moom na sulu simple moom la si la si la fas yëngu si saison bi suut nag mois de décembre parce que dina teg euh, premier décembre Joal dina fa teg 3 millions le 22 à Diofior teg fa tamit 3 millions jeexale le 28 à Mbour teg fa tamit 3 millions maanaam muy 9 millions si ñetti semaines si ñetti semaines yax yóbbu Yékini loolu dañ ko naan delloo nga mbattu si ca ndaama waaw te mu jël puso bi mu réer ndax su ko neexoon ba bàyyi toog jàpp boppam ne ci business boppam ndax yaakaar naa ne bu dee teraanga si làmb yaakaar naa la yàlla def na mu am ci làmb teraanga yaa ngi dégg macha allah ah kon defe naa tey bu jëlaatee teraangaam boobu créé Faata production te yaakaar naa Faata bi mu koy créé sax bu bàyyigul làmb tey mu bàyyi continuer ko di tëgg ay làmb ci lu wàllu toll ci ñetti semaine mu teg ci neuf fi mu nekk nii moom mu ngi dox bu baax a baax yàlla na continuer mars ndax nag dafa neex a neex ba yegg ci loolu dafa neex day ko faal dem rek rek xamal lu ma wax dana bàyyi boo demee ci làmb ji rek baaba que ñu lay filmé ngay feeñ mu ne ko rek du ko tey su may yëngutu daretu seetaan waaw non du man a ñàkk xam nga mbay ak moom ak moom ngom wala ñoom day faatu aadama jël yooyu li may wax mais biram xam na ko <laughs> deret la banal na ko pikiir du mun a ñàkk Babacar sa kàddu yu neex yooyu la ñu di leen jox di daje leen di incha allah parce que Leewtoo TV comme ni ko waxee rek li euh, ngi dem si yoonu ginnaaw ko defee si màgg li ñu dem si yoonu euh, gàmmu ji gàmmu bi fay si fay si Tiwaawan donc di jox euh, foofu rendez-vous Babacar incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow di nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Astandine Déjà Brahma Chéri Khadija Diallo di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Fallou Rokaya Moussa ak ki nga xam ne mooy euh, junior